Zarko 2 Assa Walo Zarko 2 moo ñu woon ginnaaw Assa Walo moom lañ jàkkaar lool ndeysaan Zarko 2 Assa Walo ndeysaan Zarko yéen naa ku ne tënk nga benn nen ñu ko di waanal dóoral waaw waaw yàq nga cuuj adeer na adeer na adeer na ba tolloog saaku ya adeer na ba tolloog saaku ya lu xew ndeysaan areena ba génn saako ya seera lapataaka ba ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon waaw waaw ndeysaan seera na lapataaka ba moom Zarko Zarko ngi ale lamb buura neex ma lal fa ale wax ma foo koy lal Zarko ak Sawalo Zarko moo ñu wan ginnaaw Sawalo la jàkkaar lool Abou Sefa san Zarko 2 a Sawalo arbitre baa ngi wax ak ñoom li nangu at li laaj na ay zizam ndax pare mu ne ko waaw sib na Zarko 2 a Sawalo Zarko 2 a Sawalo ndeysaan ñaari ndaama lañ ay adversaire taay lañ dañ dox daje mu ne muy a eh, Zarko cokkaas na mooy lambi xale daa war a gaaw xale daa war a gaaw xale daa war a gaaw yàlla libéré ni Zarko 2 a Sawalo Zarko 2 Assa Walo Zarko 2 Assa Walo Zarko 2 Assa Walo Assane <laughs> ñaari yaay noonu eh Zarko cokkaas na Idi Abou Sefa xale yi <laughs> léeg-léeg mbër day am décision waaw arbitre bi nga def gi jéy jéy def li def ak Modou Lo rëb ñu daje def écran def rukum daje du jeex waaw est-ce que jom ci si Ama Baldé ak Modou Lo mu ngi xale yi waaw parce que xale yi tamit nag champion day yéex a génn ci ñoom ndax duñ jël seen seen responsabilité boobu parce que wane ñu jikkooy champion lamb léegi ngay jox nit mbër ma la xaa ma wax sama mbër waaw grand ci paa yi bu ñu dégg daal yi jafe na làmb moo tax bàcc ma neex ma dëgg la ak Zos waaw Balla Diouf Papa Sow Ousa Sow Tidiane Faye ku ñëwaat ñu jël dañuy bëri yow ndeysaan at bi sifle waat na keroog ba bàcc naa di bëri Papa Sow waaw ndeysaan làmb yàgg na nag danaa la Tidiane Faye bi mu bëree ndeysaan ah, Saka waaw Zos Tidiane Faye Zos Tidiane Faye Tidiane Faye Pape lay gën nañ fàq na ko mu ñëw da koy fàq mu ñëw da koy fàq mu ñëw ñu xool waaw Zoss waaw daanu kaaw na de kaaw na ko nooju na ko bañ nooju na ko bañ Zoss Sawaalo bul dóor bul eh, dóor na protestant ba mën naa koy ragal avertissement daa kaawo kaawo na kaawo na Sawaalo mii du ñeexu ñebe benn booy. daa jël coup. Zoss daa jël coup. Zoss dem na Zoss dem na ardo. Zoss dem na ardo. Zoss dem na dem na ardo. Zoss daa dem ardo ndeysaan. ndeysaan. ku malaw. nga loolu. ba ñeeku na ndeysaan. Zoss daa dem Ardo ñëwaat Zoss dem na Ardo ñëwaat nee na supporter yi jóg leen ñu xoolee ñoom ñaar lu xew ma xool waaw fëggal sa tànk bi avertissement Zoss benn waaw. waaw ndeysaan. nee naa la sos am nga benn avertissement aussi oh, Zarko. Zarko am nga benn avertissement. bu duloo turandoom mbër du ko yab de. waaye nuru wu ko. tey saa waalo. Zarko dox na si kawam. jël Zarko yooru na. daa yooru yu tëru ko tëru. Oh. daa yor mu tëru ko ndax booy bi day yor loxo bi da da da bëgg naa taf ko. taf ko ndaama la. ñaari ndaama la waaye ndaama lu gën a yeewu da see am. dëgg la parce que bu ko Sarko jàppee day am problème. nga ñu koy xeex ñoom ñaar. te Sarko bi mënul xeex. ñoom ñaar ñëpp a yem kenn mënu si xeex. saa waalo su ko gëddee mu daw. saa waalo saa bu gëddee Sarko Sarko dana plier. saa waalo la ak Sarko. saa waalo ak Sarko. Eh. saa Waalo at Zarko Saan Sa Waalo ak Zarko Saan Sa ñoom ñaar Saan yor waat na ba dóor bu daan doom Zarko ngi dirigé Zarko dox na si kawam mais abu dafa mel ni Zarko la ñu ko tey mu daan ko indi dooral ma door door nañ ko mu daanu moom moo indi door mu daanu door ko mu daanu moom moo indi door mu daanu ñu door ko mu daanu moom moo indi door mu daanu ñu door ko mu daanu xool ko saan ay waay Zarko ay waay Zarko saan dugal kaawo nga kaawo nga kaawo nga